transparence des élections législatives législatives ah ah, ah. atel signifiewul lool ah, hmm. mooy damm-damm yi hmm, hmm. lan lay signifier atel xam nga lan lay signifier en retard de l'élection ah maanaam élection législative yi da sonal nga euh, xam nga lu tax ñu wax lool mhm. si réew am na boo xam ne fuñ fa tollee foog ñu sérieux rawatina. Mhm. ñoo xam ne dañoo ñëw ne dañuy changer mbir yi. waay yu fi ma a ñëw. Mhm. ànd ngeen see dem. waatel ñan ak ñan a fa ne Khalifa Ababacar Sall. Mhm. kan moo fa nekk. Thierno Alassane Sall. kan moo fa nekk Anta Babacar Ngom ku fa nekk Pape Djibril Fall. élection présidentielle yi nga xam ne moo fi mujj. ndax amoon na élection yu ko gënoon dëng. Mhm. si li nga xam ne mooy noonu lañ koy organiser et pourquoi. Mmh. et pourtant recalé nañ fi des candidats est-ce que Pape Djibril Fall yëkkati na kàddoom wax non. Mhm. Khalifa Ababacar Sall non moom benn yéene la amoon na bokk. si élection yooyu ba ñuy dem ndax ñoom jot nañ li nga xam ne moo di fichier bi en temps réel non non. Mmh. si élection yooyu nga xam ne moom la ñu mujj est ñoom. bu nekkee ne yéene dem élection rek a leen tax a jóg. Mhm. ndax bi nga xam ne moo di la mandataire de Bassirou Diomaye Diakhar fay mhm. bëggee yëkkati ay kàddu ci RTS ñu bañal ko ko temps d'antenne am ndax yëkkati woon nañ ay kàddu. déedéet. ndax ci élection yooyee mhm. nga xam ne ci dëkk bi ñu bëri jotuñu seen i carte d'identité wala dañ leen defal ne pas ndax ñoo mësoon nañ yëkkati wax si non si diir bu gàtt bi nga xam ne bu ñu xoolee conseil constitutionnel moom si boppam moo mujjee jël ay responsabilités pour ñu dem élection. Mm-hmm. mais bañu ñu woon dañu woon ak lu mënti xew nañ dem. Mm-hmm. mais ku mënoon demee si Macky Sall si élection yooyee ndax tey war nga mën toll si élection yi nga ne doo si dem. Mm-hmm. moo tax ma ne la moom moo li mu wax dëgg la. ji nga élève boo xam ne daawoo jàng nulaar nga. yow saa su ne boo amee. note meilleur élève bi wala kenn ki la jege moo doon bind jox la tey nag devoir surprise dañ leen defal. Mm-hmm. moo di professeur bi ñëw na nangu na seeni sàkk yëpp. Mm-hmm. professeur bi jël na meilleur élève bi Sonko ne ko teg ko léegi nag ñoom dong la leen bàyyi ngay kaay ñu dem élection. Mm-hmm. mais bu ñu waxee ci processus électoral boobu de 2012 jusqu'à 2024 si la ñu nar a dem élection yoo xam ne jàmbat du am yii. Mm-hmm. doo dégg fichier électoral jot nañ ko en temps réel c'est la première fois doo mës dégg ñu wax ci wàllum carte maanaam carte électorale c'est la première fois ñuy wax tey ci wàllum administration électorale na nga xam ne ca ndee la wala Sénat ak ñeneen ñu ko doon def. Mm-hmm. rawatina ci wàllum justice ñu andi leen un ministre boo xam ne il est libre déggoo benn candidat ñu koy andi ndëgg sërëx ci wàllum justice. Mm-hmm. ba tey ci wàllum élection yooyee. et c'est la première fois ñi nga xam ne ñoom la ñu dem. si organisation bi nga xam ne ñoom ñoo yor gestion élection bi. li ko demee si ministère de l' intérieur Jean Baptiste Tine doon quelqu'un koo xam ne mën nañ wax ne man démb xam naa ne fi mu toog ba toog ne Sonko ak Jomaay tooñ ngeen ma. andi ngeen ma si kanamu ay xale ñoo xam ne ay tappale rek ndaxte quelqu'un la koo xam ne xamul ay caaxaan général man xam naa ne fi mu toog dina ne fii du sama place. waaye pour bëgg defar réew mi. mais kookee est-ce que am na koo xam ne gën na ko yenu maanaam si wàllum libre indépendance ngir organiser élection et le même président de la république moo ne ko yéen da ca leen ngeen toog ngeen waxtaan ki def loolu ndax bëggul ñu dem ci élection yoo xam ne lépp day mate et c'est la première fois aussi doo dégg Sénat doo dégg Sénéra doo dégg ministère de la justice ñuy wax ay wa wàllum jafe-jafe si wàllum élection mm-hmm. lii ku mu doyul kan lay doy xanaa nag ku tàpp wala ku jóg. Mhm. ngir tàppale. léegi nag wax ji wax ji yëpp dafa am loo xam ne moom la ñuy préparer te yegguñu fa ñoom ñëpp xam nañ le 27 buñ ca tolloo. Mhm. autant pour moi le 17 si ngoon bu ñu xefulee zéro zéro zéro zéro la ñu nar a dégg. Mhm. xam nañ ne ñoom. majorité duñ ko am xam nañ ne cohabitation ba ñu bëgg ci assemblée nationale duñu ko am lenn moo leen dese mooy yor seen làmmiñ nan la ñuy diaboliser ñii. Mm-hmm. ngir wax ni ñii kat defuñu ay élections yu gën a libre léegi nag kan lay profité xamul wax ji wax ji yëpp mooy lan lii moom moo di la wax ne dañoo am devoir surprise amul mm-hmm. opposition bi kenn koo xam ne day représenté ne moom il est le mm-hmm. koo xam ne mën na dajaloo. dañoo dem dajale ji ñoo xam ne nii amul kenn koo xam ne nii wër na la ne kookee mën na doon Messi équipe bi e et parewuñu politiquement parewuñu si wàllum kopparit parewuñu mhm. askan wi bari nañ leen waa ATEL mhm. alliance tardel élection législative yi ñaari mën a am. Mm-hmm. nañu def la baa booy defoon. Mm-hmm. ba muy bëri nes xam ne nes mi dafa bëri dafa bëri doole te bu ko jàppee da koy daan. daa bàyyi ba làmb a war a tàmbali mu daw tuuti rek taxaw. Mm-hmm. mu ne damaa daw rek sama tànk bi ne tef. waaw ba ñu bëri. mënuñu wala parewuñu yaa xayti nañu toog mais sincèrement. waxi waxi Cheikh Tidiane Youm bëgg bëre bëre. bëgg bëre bu nekkee nag dañoo nangu woon ci Macky Sall bëre. nga la waaye aw ma nag mais bu ñu demee ba buggaan ngay dani yow si boppam parrainage mosoo see jàll jomaay ne la kaay comme yow li woon nekkoon sa jafe-jafe teggil naa la ko léegi kaay bokk nga ne sa doom nee na saak la la tegal ñun mooy bëgguñoo dem <laughs> maanaam élection yi bu ñu fi jógee waaye tamit bijou tamit duñ ko duñu waxtaanee ah, bijou bi nga xam ne mun suñu <laughs> émission bi ba ci suuf ah, maanaam ah. maanaam di nga di yi bu ñu sa jógee dañuy xam kenn ku nekk bën yow yow maanaam dafa am looy looy looy looy représenté bu ñu jógee ci élection bi dañuy xam borom zéro yi. borom un yi borom mhm. deux yi. Mhm. borom soixante di si borom cinquante yi. Mhm. gars yi nag dañoo bëgg ñun ñu nekk ci ñoom kumpa xam nga saa su ne ñu bëri ci coalition lañ doon demee. amu ci kenn ku ci ma a jël dayoom jël fitam demal boppam. benn yoon lañ ko def. muy 2024 gii te bi ñu demee gis nga Khalifa Ababacar Sall one out Pape Djibril Fall zéro Anta zéro zéro zéro léegi nag foogaat ñu jéem a nëbb loolu mhm. mais nan ngay jógee ci élection présidentielle mhm. bu nekkee dëgg-dëgg gëm nga ko ñu ne la kaay dem élection législative nga ne doo dem yow nga bëgg jiite réew yow ñu ne la kaay wut kenn ku lay représenté ca assemblée nationale mhm. sincèrement nañ bàyyi seen tappale liñ bëgg a def nag au niveau international jéem a diaboliser nguur gi na leen ñoom ñooñee mbir yu jubul wala dara leeru du début à fin fi ñu tool nii di wax ak yow ñoom ñëpp jot nañ fichier électoral. Mhm. démb bu ma déggee omarsar Sarr borom boobu réy boobu ñu baal ma si wax ji. Omar Sarr yow ñu war laa lijjanti yow bi ñu la joxee mine bi yow bi ñu la joxee fi suñu mine. Euh. lan nga ca def lijjantee loolu. Mhm. nga ne da taxaw général bi di jéem a tappale. il faut ñu sérieux quoi il faut ñu sérieux. bu ñu mënulee bu ñu bëggulee dem nañ dem léegi nag lenn moo ci am. Mhm. li tax ñoom ñëpp ñu bëgg a dem assemblée li tax ñu bëgg a tardel ngir renforcer bëgg a doole. Mhm. lenn lañu bëgg am immunité parlementaire ndaxte xam nañ mesure parti bi. Mhm. pôle judiciaire euh, financier bi day dal seen kaw. jubuñu amul ku ñu tabboon ministre te loobaloo. booy wàññi ñaar ak ñett lay doon léegi nag nan la ñuy tardalee mbir yi gars yi bu ñu leen tardel ñaar am. le 17 bëgg bëri bëri bañ bëri bëri. Mhm. et maintenant buñ ca jugee à partir le 17. waaw dictature bi nag foog mu tàmbali. Mhm. ah. bàyyi dictature daaw na mhm. xam nga askan wi ñooy mottali yéene bi ba tey. <laughs> askan wi nga xam ne ñoo tabalee 54 pour cent. le 17 bu ñu joxee Diomaye ak Sonko majorité. mooy askan googee bëgg nañu liggéeya leen seeni réew. dañoo tardé vingt ans vingt ans la ñu tardé. amuñu auto suffinance alimentaire. Mm. suñu football la fa nekk kenn mënu la ko wax magu yi doy waar kenn gën mënu la ko wax. et pourquoi xale yi saa su ne di jug dugg ci géej bi est-ce que Prodac est-ce que emploi des jeunes est-ce que yooyu yëpp bu ñu ko tegoon mettre ko ci niñ ko waroon def askan googu mënuñu ci liggéey. Mm-hmm. xale yi dem nañ ci réew mii xam nga lu ñu wax. Mm-hmm. bu 2024 weesoo fu ñu jot dañ fay tabax mbedd bi mbedd mbuur la. lu ko waral. dañuy dem ca mbuurkat fekk waa cees ak ñi nga xam ne moo di Kër Moussa ñu gën koo jege. Mm-hmm. ñu def seen morcellement wala terrassement Thiès dëkk ba xat na mm-hmm. waa Kër Moussa ak ñooñu ñi ñi leen ñu jox ay 24 ñooñu Farba Ngom mu jóge ci añam ñu jox ko temps ñaata hectare keneen ak keneen ji nga xeetu politique continuité boobu di dund mm-hmm. di muucu askan wi ñii ñoo raw ana fel femelle eh? ñoo ko raw dañ ñoo muucu ba ñu jeex léegi nag lu ñu bëgg duñu bàyyi suñu yax alalu askan wi yëpp jël ngeen ko dundee seeni seen i doom amul kenn ko fiy jàngee. Mm-hmm. tedd ngeen defar ngeen seeni kër amoo leen problème mu courant amoo leen problème mu inondation. Mm-hmm, mm-hmm. mais ñun askan wi nga xam ne ñoom moom suñu réew ñooy décider. ñun askan googee ñu ne 54 pour cent yi lañu ñu àndal. yéen ñu jox leen defaroo leen. ngeen ne nag déedéet ginnaaw gi nga xam ne tedd ngeen. ginnaaw gi nga xam ne defar ngeen seeni doom ginnaaw gi nga xam ne yéen li ngeen bëgg yéen ak seeni i njaboot seen i sëti sët buñ leen bawee ak li ngeen sàcc rek teddi ngeen askan wi ne leen nag ngalawaay la ñu desee ab tuuti si oor ak ca pétrole ak ca gaz da ngeen ñu ko bàyyee. Mm-hmm. ñu ne ñu déedéet duñ leen ko bawee duñ leen bëgg jëri ngeen jëriñoo ko dañ leen bëgg léegi toroxal léegi nag ñooñu ñun dinañ leen bàyyi ñun ñu toroxal ñu. déedéet raison pour laquelle may wax si wàllum dictature à partir le 27. bu ci élection yi jeexee. Mm. ñu ne Diomaye Sonko lañ jox majorité. sa waay waa benn bokk yaakaar yi ku si wax te askan wi jóguñu lijjanti seen mbir ma xam ne ñoom bëgguñu réew moomay dem. ndax dañoo soxor bëgguñu réew mi dem. <laughs> seen poos leen gënal suñu poos. et sincèrement nag yaa xayti. Mm-hmm. jëriñuñu nañ bàyyi askan wi jëriñu. Mm-hmm. mais bu yàggee lan lay nduru soxor lay nduru. waaw Macky la ngi ne lu mu am Maroc cité. doomam doomu keneen ak tedd na wax ma si doom waa benn Bokk Yaakaar yi kat moo si dund ay jafe-jafe à part militant yi. Mhm. ñoom ñëpp jàng ji nañ yow demal nga wuti ji visa wala ma wuti ji bu la ne woon tey génneel euh, deux pour nga tabax amoo ko aw ma ko. Mhm. amuñu suuf. paanu suuf nga naan euh, deux ñun daal boo xifulee lenn la ñu nar a am bu ñu leen bawee fii si réew mi lenn la ñu nar a am. Euh, bu askan wi ñàkkee fayda ba ba fi ñii. Mhm. lenn la ñu nar am dinañ dund ba dee bàmmeel la ñuy am te bàmmeel yi tàmbalee nañ koo jaay. Mhm. ñu ne ñii nag ñoom lan la ñu bëgg ba pare ñu naan ñu muñ leen muñ leen. Mhm. après dañuy jëkk di yëkkati kàddu yoo xam ne xam nga ne li ñuy wax méngoo ko dara ki dëgg. ñii bu ñu nekkoon góor dañuy bàyyi ak suñu réew. <laughs> askan wi ñooy décider. Uh-huh. très bien <laughs> Daouda alors Momo. Euh, ñii di société civile ñoo ngi euh, ñoo ngi tiire ñoom itamit euh, kii di ci kii di ci le premier ministre Ousmane Sonko gis nañ ñu ngi xamal ni lors du dernier conseil des ministre le premier ministre Ousmane Sonko daal dinay présenté benn agenda bu validation. boo xamante ne ni bi nouveau référentiel des des politiques économique sociales mhm. euh, deux mille vingt cinq jàpp deux mille cinquante ak euh, ses déclinations et un master plan euh, deux mille vingt cinq jàpp aussi deux mille trente quatre mhm. ñu ngi xamal daal ñi di société civile daal dinañuy yëkkati ñoom it ay ay ay missile sol sol daal di koy teg ci kaw Euh, Sonko. oui ginnaaw jotaay jotaay prés euh, euh, kii bi. jotaay conseil ministériel am bi waaw. oui bon xam nga ku ci ak ak rôle bi ngay joué. quoi mm. ku nekk ak ak ak ak bi ngay joué mais je mm. pense que ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ci ci société civile bi d'ailleurs waxu. Euh, ministre de l'intérieur bi nga xam ne defe naa moom la daaw doon wax léegi. Mm-hmm. di wax ni ñoom. le ministre de l' intérieur waru woon wax que ñii pare pour dem si élection parce que jàpp nañ ne su waxee wax boobu. Mhm. dafay mel ni kàddu politique la wala dafay euh, am lu muy yàq si position neutralité bi nga xam ne ci la nekkee. Mhm. mais ce qui est daal mooy. dafa am loo xam c' est un constat ñoo xam ne da nga leen a woo. ne leen kaa leen ñu ñu ñu waxtaan pour ensemble ñu mën a xool naka la ñuy demee ci ay élection am na loo xam ne nii moom bu ñu demee ba koy taxawee soo leen ne pare woo leen pour dem ci élection pour man c'est des yoo xam ne wax nga ko du attaque politique parce que mhm. euh, je pense que Jean-Baptiste Tine nekkut un politique bokk ci parti mais nag dafa am loo xam ne c'est le minimum mhm. mooy booy def effort pour que ñu mu déggoo mën a am dafa am loo xamante ne nii loolu euh, moom mooy yoon waaye di di di di buddee ay réunion wax ci loo mhm. xam ne nii amul benn base boo xam ne ni si nga mën a sukkandiku donc yooyu moom mhm. jàpp naa ne jàpp naa ne jàpp naa ne mooy loolu par rapport ak euh, parti ba xam naa ne dinañ ci ñëw sax d'ailleurs mhm. euh, la coalition euh, Diomaye président par rapport ak si société civile boobu nga baal ma de waaw nga ne dañoo buddee wala ñeneen di <laughs> mais yéen yéen <laughs> yéen yéen yéen yéen ngi ci dëkk bi mhm. wàññil ma fi ñan ñooy société civile Alioune Tine ci la bokk. waaye ah, ji nga en fait ji nga xam lu yàq suñu réew. Mhm. mooy ñun étant journaliste ñu taxaw ne non nous sommes des journalistes dañoo war a wax éthique et déontologie dañoo war a équilibre. Mhm. parfois dañuy jaawale équilibre ak ñu baal ma ci kàddu gi mooy naa naafeq maa ngi jéggulu waa heure dëgg bu ñu ko gisee nañu ko wax. mais majeure partie bi ci société civile bi. Mhm. Macky Sall ñoom la jëloon yóbbu leen conseil économique social environnemental. Mhm. Macky Sall yoon la fi woote dialogue. baaxee na mais dialogue bi mu mujjee woote. dialogue bi mu mujjee woote fii. Mhm. mu woote dialogue national am askan wi woote seen dialogue national ñu dem ca parcelle jardin parcelle ca Jamil Sane ñu jëlee leen fa. ñu yóbbu ko ca Malick Gakou ñu andi fa bip. mais si même moment Macky Sall moment boobee moo ngi def dialogue. Mhm. te am na te boobee société civile ñoom Aliou Sané wala keneen ak keneen ñu jël seeni i responsabilité ne dañuy def seen dialogue. Mhm. ñu ne leen duñ ko fi defee. mais si même moment am na beneen société civile soi-disant société civile. Mhm. ñoo ngi ca Macky Sall. ñu nekk fii di lim. mais xam nañ ñu doon liggéey ak Macky Sall. dañ ñoom ñoo continuer seen mbir yi et def na fi lu gën a pire est-ce que mës nañu koo dégg ñu wax si. oui buubu lañ doon def. Mhm. mais société civile dëgg-dëgg. exemple laa lay wax du dara de la FAPAS dama dégg Aliou mu ne bi ñu xoolee réew mi fi mu jógee ak fi mu yegg si. Mhm. mais société civile bi kan ak kan lañ ca jàppoon ñan ñoo war a wax ci société civile xam nga réew mi ñan ñoo war a wax ci ci société civile fi ñu toll nii. waaw bu Y'en a marre moo war a wax. waaw Pape Abdoulaye Sénégal priorité moo nar a wax. Mhm. buñ ne société. Abdou Karim Gueye xurum xàq moom moo war a wax. Mhm. ñooñu ñoo ànd ak askan wi xeex. waaw ak waa Ligue sénégalaise des droits euh, euh, euh, humains. Mhm. mais pas wu société civile yi nañ ma ba double zone la ñuy def. waay waay. double zone lañ doon def ak Macky Sall. Mhm. waa société civile bi li ñu war a wax ñi fare si ku jigi moo di. de 2012 jusqu'à 2024 c'est la première fois ñuy dem élection yoo xam ne amul yu ko nar a gën a libre yu ko nar a gën a transparent mm-hmm. chaque fois lu ñu doon wax kii di organiser élection bi na nekk ki nga xam ne mooy lan un ministre de l'intérieur boo xam ne laalewul li nga xam ne moo di dara coloration politique et c'est la première fois Macky Sall lan la waxoon biñ ne ko bàyyil Ousmane Ngom Ousmane Ngom bëgguñu mu organiser élection dana ñàkk Ousmane Ngom moom moo koy organiser mm-hmm. si Abdoulaye Wade Macky Sall bi ñëkkoon fii lan nga fi déggoon bu Abdoulaye Dior lu mu fi waxoon dinañ gagné dès le premier tour avec combien de pour cent nga dégg mu ne moom moom moomay moo nekkoon bu taxu Abdoulaye Wade. waaw Macky Sall ñaata yoon lañ ko wax ne sa ministre de l' intérieur war a organiser élection. Mhm. Antoine Diome bu organiser woon élection yi nan la demee il a fallu que changement am ndaxte waa ji def na guuta mhm. mais nga am ab benn général Jean Baptiste Tine ne leen kaay leen waxtaan. fichier électoral bi ngeen yor ko en temps réel. Mhm. les soi-disant société civile. ngalawaay bu ñu mënul wax ne ñi nekk ci nguur gi ñoo ngi def effort ngir askan wi ñëpp mën a voter ngir ñëpp mën a dugg. Mhm. yaa xeeti nañ noppi. réew mi nag on se connaît de. Mhm. fàtte xaju fi. waaw xam ne ñu fi taxawoon ak réew mi ak ñi nga xam ne double jël lañ doon def. ñi fi àndoon ak Macky Sall bëri na de te Macky nag. si nguuram yàlla daa tax ñu xam kan mooy kan ak kan. Mhm. encore une fois fa laa koy tëjee. Mhm. moom nga baal ma. oui oui bi <laughs> bu ñu waxulee ni ñii yoon bi ñu jël foofu la. na ñenn ñi noppi. nga xamante nañ si réew mi bëgg ñoo tudd tur rek. Uh-huh. bu ñu fi gënaatee wax dina ne diw. waa ji nga nekk da nga doon jouer deux boules diw jàpp ñu leen. Mhm. fii ñii lañ fi jàpp. ñii ñoo fi dund jafe-jafe. à part ça nag keneen koo fi gisul woon ñu jàpp daa nekkuloon ak waa ji. waay hmm. <laughs> très bien Daouda bul mer nag sama xarit. non mer ñu mais. bul bul mer calme toi quand même. calme toi meru ma si nguuru Macky Sall di mer nguuru Diomaye ak Sonko. mais nag am na ñoo xam ne waruñu leen bàyyi ñu yëkkati kàddu. système la bu ñuy wax système da ngeen comprendre système bee yaatu. Mhm, mhm. loolu loolu loolu dëgg la am. kilim bee ngi ëpp waaye xam naa doy la jëlal loolu nga la ko tuuti du ko yàq ndax fi ñu war a laal dafa dafa dafa nax a gën a nooy du dëgg <laughs> yaa sama xarit <laughs> nag waaye waroon nga xam ne ne